alal ñi nga xam tey jii ñoom ñooy borom ñaari tur dem na sax ba yenn événement buy daal di am maanaam bu ñuy amal li nga xam nag moo di seen défilé ñoom euh, borom ñaari tur wala ñi nga xam tey jii ñoom ñoo di lesbiennes yi moom mooy toog nekk li nga xam ne nag moom moo di jury bi tey nan nga mën jàngatee attaque bi nga xam ne ñu koy attaque kii di président euh, Bassirou Diomaye waaw euh, président Bachir ak premier ministre Seydina Ousmane. Mhm. dafa am ñoo xam ne dañoo yàkkamti maanaam ñu ngi yàkkamti lool lool sax. pour gis gars yi def erreur ba ñu dal ci seen kaw yàkkamti googu nag da leen jural léeg-léeg dañuy dem fekk fu dara nekkul ñu bëgg faa créer dara loolu dafa fekk yéene la rek xam nga léeg nga dégg tey journaux yi ni ñuy waxee da ngay xam ne kii mu ngi mu ngi lay jongur di xaar nga def erreur nga def toj-toj comme ni ko Macky Sall doon defee ba ñu dal ci sa kaw léegi même bu ñu dara amul nag dañuy seet fu dara amul ñu nekk fa di di kii rek di coow seen coow yooyu noonu mais kii euh, nan la Michel nan la tudd. Euh, Charles Michel. Charles Michel moomu. Mhm. dafa yor poste yu rëy. Mhm. kilifa la ci àddina bi. Union européenne. Mhm. moom la représenté fii. Union européenne. xam nga Union européenne daanaka vingt six pays. juróom ñaar ñaar fukki réew ak juróom benn. tey mooy ñooñu nga xam ne ñooy kii bi. ñoo bokk pas euh, kii visa bi. maanaam tey boo amee visa wu euh, France. Mhm. mën nga dugg ci vingt cinq pays yooyu yëpp. ñooñu la fi représenté. Mhm. maanaam teewalu fi sax benn réew. Mhm. léegi ñoom réew mu ne li ñuy doxal ak yow ci wàllu économie. wàllu partenariat lan la ñuy liggéey ak yow lan la ñuy jàppalante yow. loolu moo tax kooku dañ koy yebal fu ne ci àddina bi. comprendre nga. fu ne ci àddina bi lay dem. day dem Arabie Saoudite dem Égypte. autorité àddina bi yëpp toog na ak ñoom wax na ak ñoom. Mhm. ci wàllu économie wàllu partenariat. Mhm. loolu mooy mission maanaam dañ ko post la. Mhm. loo xam ne loolu lay liggéey. quant à affaire ngóor jigéen nag. loolu affaire personnelle la. vie nit ki la. c'est-à-dire mu ngi mel ni tey eh, premier ministre France bi. du góor jigéen la. léegi tey Sénégal bu ñu demoon ba góor jigéen boobu premier ministre France war a ñëw fii da nga naan ko doo doo ñëw parce góor jigéen nga. déedéet yow amuloo affaire ak góor jigéen bi mais premier ministre bi nga amal affaire léegi suñu culture yi ak suñu tolluwaay yi du benn ñun moom àddina du yàgg ba ñu am fii ministre boo xam ne góor jigéen la mhm. ñun nanguwuñ ko suñu diina bañ na suñu culture nanguwu ko mhm. mais ñoom seen diina seen fañ tollu bañu ko waaw fañu toll bañu ko mhm. euh, dama daan def léeg su ma su ma su ma nekkee Espagne euh, bu may julli yi fi ma daan jullee dafa sori mais dama daan romb ci place góor jigéen yi LGBT yi. nga gis ma romb leen foofu laay romb dem fa may jullee ji ma romb leen ma ma gis ne réew mi fii affaire bi dafa naturel. bañuñu ko amuñu ci benn yëg-yëg maanaam lu normal la. waaw comme ni ngay gisee dégg nga maam ki yor cigarette di tux ci mbedd mi ñoom yëf yi noonu la mel foofu la seen société toll. donc ñun euh, Charles Michel nekk góor jigéen ci ñun la rëy. mais ñoom fañ toll Europe ñoom réyut ci ñoom nangu nañ ko accepté nañ ko léegi ñoom société bi bañut loolu seen société ñun suñu societé li muy bañ mooy koo xam ne da ngay ñëw indi sa gëm-gëmu góor jigéen wala indi ay xaalis wala ay financement ne bu ngeen bu ngeen mën na nangoo jàppale def sénégalais yi góor jigéen wala créer fi ay association góor jigéen ma financé leen su fekkoon ne looloo ko tax a ñëw konoon gaa yi am lu ñuy wax. exactement mais loolu taxu koo ñëw. Mm. la ko tax a ñëw wax na ko. def si conférence de presse ak président Bachir Diomaye àddina bi yëpp wax ko. Mm-hmm. ñu bind ko doo ci gis moo góor jigéen doo ci gis moo LGBT. Mm-hmm. gis nga Europe. Mm-hmm. ministre yu bari yooyu gis foofu ay góor jigéen lañu. léegi yow est-ce que da ngay toog naan léegi comme France ay góor ministre góor jigéen la dootuma jëflanteeg ñoom. loolu xel mënu ko nangu. banque mondiale gii ngay dem ak FMI am na góor jigéen yu fa nekk. mais àddina bi fi mu toll da nga naan duma ma jëflante ak ñoom non mënul nekk. daanaka puissance mondiale yëpp. waaw ñooñu la waaw donc yow li nga mën mooy bu ñu la imposer ay loi yuy dooleel góor jigéen nga lànk. wala ñu ne boo nanguwul jàppale góor jigéen duñ la financé nga gedd financement bi. ñoom loolu sax taxu leen a jóg. parce que ñoom it bu la si kenn nax nu wuude nam la gisee la lay ëwalee. avant euh, Michel mii di ñëw fii nii mais xam na kan mooy Bachir Diomaye. wax nañ ko kii lan la gëm xam na kan mooy président Ousmane Sonko wax nañ ko lan lañ gëm. xam na ne ñi ñeme xel xalaatul juróom-ñaar fukki xelam dajul moom euh, Michel mi mu ñëw fii naan euh, mbirum góor jigéen du ko fi wax bu demee Arabie Saoudite du leen wax loolu. donc tey euh, affaire ngóor jigéen dëkkam la yen bi muy ñëw fii ñëwul en tant que góor jigéen mais dafa ñëw en tant que ku représenter Union européenne ñëw diggante réew ak réew te loolu kenn mënu ko bañ. Barack Obama bi mu ñëwee Sénégal di fi wax affaire ngóor jigéen pour ñu pour ñu woyofal ko daganal ko fekk yooyu mais Macky Sall si jamono jooju def na ko paree gu ñu woon. la taxoon maanaam li taxoon Barack Obama ñëw loolu da cee bokkoon. mais euh, Charles Michel mi mhm. <laughs> Charles Michel Charles Michel mi. dégg maanaam. Charles <laughs> Michel Charles bu ko loolu taxoon a jóg. loolu day bokk ci yi ñuy wax. seen i débat ci seen i débat. dégg nga bon il faut que dégg nga homosexuel dégg nga ñu respecté leen jox leen seeni i droit mais loolu bokkul ci programme hmm. loolu taxu ko woon a ñëw donc kuy wax ba pare naan euh, di naqarlu loolu hmm. ci turu l'islam ak fi jamono bi toll non da koy def ci sa gisin hmm. mais l'islam damay wax toujours aussi ne gis nga euh, silla nañu bàyyi ku jóg rek di wax ci lislaam wala booy wut say lay di ko wér ci l'islam yombewul noonu damay wax ne mais balaa ñuy wax góor jigéen bu doon ci lislaam képp la. Hmm. mais da nga naan kii yéeféer la. waaw nekk yéeféer ak nekk góor jigéen lu gën a bon. Hmm. xam nga ne nekk yéeféer moom fa la bàkkaar yam ah, waaw est-ce que da ngay toog naan man du ma jëflante ak yéeféer parce que jullit laa non hmm. jullit da ngay jëflante ak yéeféer yonent bi jëflante nag ñu gëmut yàlla dégg nga di jaamu ay xërëm te loolu moo yées nekk góor jigéen mais nag ay accord wàllu diplomatie mooy régler loolu ku nekk nga xam fan ngay tàmbaleek moom ak fan ngay yem ak moom am na lu gën a leneen lu gën a garaaw loolu dégg nga nekk góor jigéen ak ak lekk riba lu gën a bon dégg lekk lekkkatu riba yàlla da ko déclaré guerre ci alquran waaw lekkkatu riba moom yàlla ñaar la déclaré guerre mooy kuy xeex wàlliyu yàlla ak lekkkatu riba yi waaw yàlla nee na pare leen bu ma leen bett suñu banque yi yëpp. Mhm. daa am riba. Mhm. bëri na ci pourquoi duñu wax loolu. Mhm. est-ce que dañuy wax naan léegi comme ñun léegi yéen dégg nga yéen da a baax wala nangam ñun ñun ay ñu ay jullite fi ëpp léegi banques yi bu mu amati riba. gis nga loolu boo ko fi defoon. benn tali doo ko taxawal ci jamono ji ñu toll. parce que banque mondiale ñoo lay lebal xaalis. FMI ñoo lay lebal xaalis. dégg nga réew ñi lay lebal xaalis yëpp ci ay intérêt la tegu. mais da nga koy nangu parce que ci daruura la toll. mooy li ñuy tuddee euh, cas nécessité. Mhm. pexe da ñàkk pexe pexe la. moo tax banques yi yëpp tey nga xam ne banque riba la. Mhm. doo toog naan du ma fa leb xaalis wala duma dem jëflante ak ñoom mënoo ko. Mhm. da ngay jëflante ak ñoom parce que situation boo nekkee ci jamono système mu lekk medd il faut nga cof ci médd mi pour jot sa bakkan. donc tey bari na lu diine santaane tere état yi dañ koy def par force. parce que amuñu pexe. exactement waaw donc lii ma lay wax nag. ku xóotuwul ci jurisprudence islamique mënu ko xam parce que dafa am ñoo xam ne débat wu mbedd mi moom la ñuy jël yóbbu ko di ko def débat wu diine mm. te fekk am na question yoo xam ne experts yi dégg nga punkal yu mag yi mm-hmm. ñoom ñoo waroon aborder question yooyu mais koo xam ne wax dëgg yàlla boo ko laajoon tey mm-hmm. eh, risala jàng ko mislaahu salik jàng ko mm-hmm. jàngul fiqhul maqasid jàngul maqasid jàngul al awlawiyat jàngul fiqhul awlawiyat eh, wa hakaza jàngul usul yenn question yi du ko mën a traité donc da ngay xam ne rek débat wu démagogie lay doon maa wax li maa bëgg a feeñ maa dénoncé lii mm-hmm. non da ngay juum donc yu bëree bëri yi ñuy wax ci yu mel noonu mm-hmm. euh, yooyu yëfi yëfi juumte la rek ak comme waxoon naa ko ma ki naa ko wax ñii non contexte yi du benn. tey eh, lan mooy objectif génn boobu mu génn parce que tey jii gis nga ci mois bu mu génnee. Mhm. daanaka euh, ki nga xam ni moo di président Bassirou Diomaye fay ñi nekk way kilifa diine yi dañ ko jox gëdd bu baax a baax ci geste bi nga xam ne def na ko fële ca Touba nga xam ni moom mooy ca Tivaouane naam sax dina dikkaat naka tey jii bu mu jullee fële sa euh, juma omarienne. Mhm. ci mois boobu nuy waxtaanee li nga xam ne nag mooy geste boobu mu def rawatina fële nga xam ne mooy ca Touba sumi li nga xam ne nag moo di dàllam ormal bu baax a baax li nga xam ne nag moo di bërëb boobu nu teg ci ab fan moom ma Mame Matar Gueye ko attaqué ci li nga xam ne moo di mbir moomu lan la si jublu. waaw euh, bon man du ma tudd sax nit. Mhm. mais damay wax d'une manière général exactement bari na yu débat yoo xam ne. Mhm. boo déggee ni di ko def ba pare di di askanoo ci diine wala di wéeru ci diine. Mhm. di waxee nenn ni da ngay wax rek ñaari mbir moo ko mën a dal benn. mooy comprendrewul diine ci boppam. wala danga nga naan am na beneen yéene bu ko tax a jóg. mais li nga xam ne Jean Michel ñëw na def ko fii Sénégal. wax ko président Bassirou Diomaye président bi tontu ko tontu boo xam ne da nga cee war a sigg yow en tant que mm. africain donc loolu amul lenn lu ko ci diine di daan amul ku ne diine daan na ko ci loolu waxoo dëgg mm-hmm. diine daanu ko ci loolu defu fa lenn loo xam ne diine da koo tere léegi nag boo toogee naan naan waa ji góor jigéen la mm-hmm. mais banque yi nekk Sénégal banque riba la mm-hmm. lu tax ngay jëflaan nga nga nga fay denc xaalis ah fii ñii ñëpp ñuy ñëpp seen xaalis ci riba bi am nga ci. munoo ci mhm. bu ñu lay fay salaire ci xaalis yooyu lay daje. dégg nga lonaas a ngi nii nangam ak nangam carte yi nii loolu yëpp dañ koy dajale di ko di la ko jox. te munoo ci dara parce que c'est le système. tey ngay jëflante état boo xam ne ministre ba góor jigéen. dañoo am ministre bu góor jigéen. wala ñu jël benn envoyé boo xam ne góor jigéen la. Mhm. wala nga dem di lebi xaalis xaalis ba ñokk moom góor jigéen la. Mhm. wala nga dem tey di di di di mooy mais c'est tey tey dafa am loo xam ne ñun dañu nekk jamono néew doole. Mm-hmm. ñàkk pexe li nga xam ne am nañ ko muy suñu akki mm-hmm. ñu téye ko suñu aada suñu diine loolu lañuy ñuy aar tey li ñu muntu nangul Bassirou Diomaye tey. Mm-hmm. kenn jógee bitim réew ñëw ne ko affaire ngóor jigéen da koy jàngale ci école Sénégal tey bu Bassirou nangu woon loolu ñun ñooy jóg nag ne ko hé. lii diine da koo bañ. lii ku ko def da ngaa wor nangam sàngam. beneen bi affaire ngor jigéen combat bi nga xam ne amoon na ci. Mhm. mais ñu ngi jëm ñu day continuer li waa sànn ànd ànd sàmm jikko yi defoon. Mhm. projet de loi boobu ñu bu utoon mais day continuer mhm. léegi bu ñu demee nag ba nga xam ne jël nañ loolu yóbbu ko assemblée ñoom ñu bañ koo woote. ay député bañ koo woote su boobaa ñu ne ko yaa ngi Macky Sall la parce que nii la ñu defoon comprendre loolu la. kon yaakaar nga ci nguuru président Bassirou Diomaye fay bi dina dem ba criminaliser li nga xam ne moo mooy homosexuel. non amul sax werante parce que parce que luy tee ñu criminaliser ko amu fi. Mm-hmm. parce que Sénégal ñaara fi nekk. chrétiens yi ak musulmans yi. Mm-hmm. ñun ñooy ñu fi nekk. le quatre-vingt-quinze pour cent lu ko lu ko ëpp ay jullit lañu. Mm-hmm. bëgguñu ngóor jigéen suñu diine bañ na ko. ñi xamul tënku wuñ ci diine di tënku ci aada ak baax baaxu maam yi suñu baax baax suñuy maam animistes yeeg voix sacrée ñoom ñëpp kenn bëggu ci ngóor jigéen. Mm-hmm. du suñu culture. mais doone dagan na ca Europe nga ne day dagan fii. Mm-hmm. non mënul nekk. tey ma jox la benn exemple beneen exemple. Mm-hmm. li lay wan ne ñun ak ñoom duñu ñu benn. wax naa la ne Europe néew na nga dugg quartier. ci dëkk quartier yi lu dul di nga fa gis ay bar ay boîte ay ay place publique ay banc yoo xam ne LGBT yi ñoo ko moom. Mhm. loolu c'est seen c'est naturel comme naan ndox la. maanaam tey bu ñu gisoon sax ngay jéem a naqarlu lool dañ naan waa mais kii est-ce que bopp bi ndox a ngi ci. Mhm. comprendre nga mhm. mais léegi tey tey bu ñu euh, yaa damay seetaan si télé tubaab yi ñuy wax naan. Euh, Bachirou dafa am problème ndax ñaari jabar yi mu am <laughs> tubaab yi di fen de mhm. mën na leen waaye mi ñi ñoo mën a fen mhm. kan moo leen wax ne président Bachir daa am problème ak ñaari jabar mhm. gis nga ñaari jabar muntu dugg ci bopp tubaab waaw parce que loolu question culture la comprendre nga léegi yëf yi noonu la mel euh, polygamie ñun xam nga mooy mooy règle bi tey euh, góoru benn jabar boo ko defee fii sax dañ naan ko dal kii lu ko dal waaw dafa ñàkk pexe wala dégg nga maam mais dañ naan kilifa dëgg góor bu matee góor dëgg dëgg ay jabar yu bari lay yor loolu mooy suñu aada maam mooy suñu baax baax euh, benn jabar exception la war a doon ci dundu nit maanaam ñàkk pexe dëgg moo war a tax góor di yem ci benn mm-hmm. jabar absolument waaw mm-hmm. comprendre nga ñun loolu mooy suñu aada mm-hmm. mais tubaab yi loolu day ñaaw ci ñoom waaw léegi aada yi ak gëm-gëm yi du benn ñoom ya nga xam ne wutal nañ ko ay loi mu baax ci ñoom ñun bokkul ak ñun ñun mënuñoo muusa ko waane ba ni ngóor jigéen mel Europe ñu fexe ba mu mel ko Sénégal duñ ko nangu ngóor jigéen sax day gën di néew doole fii ci Sénégal mm-hmm. day gën di néew doole parce que état bii di ñëw euh, xam nañu bu baax parce que mm-hmm. ñoom président Ousmane Sonko bi waa ànd sàmm jikko yi di def seen liggéey dem nañu wax ak moom mm-hmm. ci affaire ngóor jigéen am na ci position yoo xamante ni yu baax la ba jox leen ay xelaati boppam xelal leen donc euh, ñoom ñiy wax di wax dañoo yàkkamti nañu dal te teey uh-huh. te xam ne ndar xëyul sotti affaire yi étape par étape ngay xeex li ngay li nga bëgg hmm. di ko wut ndànk par ndànk ba keroog muy sotti exactement donc noonu la daal exactement très important bu ah, nekkoon euh, réaction ki nga xam ni euh, moom moo di euh, imam Alamine Dramé ci